واجبا دايا لا ويا ما خسر الانس والجن رسول الله اليكم واجبا mbokk yi ci loolu ngoon nga xam ni ñu ngi ko doon expliqué ci boor yor yor yor googu nga xamante ni muy moment bu fort Maguette Samb bokk ci euh, commission communication wala bokk cellule de communication bu appel bi alors Maguette gannaaw bi ñu doon nuyoo la ziar la ndokkeel la ci bés bu tedd bi euh, tey moment bi nga xam ne muy moment bu fort bi yi doon xaar yëpp muy yor yor bi mën nga ci dellusiwaat ndaxte boobu taalibe yi ku ci nekk am na lu muy yëg. Euh, sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah ala kulli xaal. Euh, di sant yàlla di julli ci Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam comme ni nga ko waxee dañu nekk ci moment bu foor moment bu bu intense parce que jamono juñ toll nii moom mooy moom mooy appel bi yaa ngi ci ci cœur de l'appel ndax itam Seydina Limaamu alayhi salaam lii la woote woon démb dañ doon ubbi rek ak a ziyaar waaye bésu tey bii mooy bés bi nga xamante ne si la sang bi taxawoon fii ci tefesu géej ne yaa maxsaral insi wal jinni teg loxoom ci dënnam ne inni rasulullahi ilaykum li tax nag muy foor ci taalibe yi li tax taalibe yi di ko dékku ak tàngaay bi ak poussière bi ñoom ñëpp ñu toog mooy kenn ku ci nekk da ngay wane sa cofeel ci seen alimaam alayhi salaam ndax da nga naan dama koy fekki ji ndax bu ma fekke woon ba mu koy wax damay dem daf ma koy jaral waaye comme que wu ma ko yàlla nattu ma ma dem bay fekkee fu koy Euh, féetee lu mu ko jar dinaa ko def def ko. moment boobu si ñoom tamit si la ñuy wuyu si tam. moment boo xam ne bu ñu mën a wuyu si la boobu mooy bi ñu ñoom loolu la ñu fekkee lii boo gisee mu jaral ko taalibe yi lii la ñu fekkee waaye nag lu mu ko jaral taalibe yi fukk jaraloon na ko moom sang bi Seydina Limaamu alayhi salaam téeméer ndax lu tax Baay Laay bi muy oote si dëj la ko fekk benn dëj yaayam dafa génn àdduna ñetti fan mu woote kon mu ngi si dëj. mënoon na ne bu fekkoonte ne yëfi boppam la danaa ne ah, sama yaay dafa gaañu naa bàyyi ba affaire yi jàll lii loola waaye danaa ne ah luy mbiri yàlla la yàlla ma yónni may woote jog dem def la ko yàlla yónni ba mu ko defee itam metti woon ndax wéetoon na ci xeex bi moom kese moo xeexal boppam. nekk doon nañ ko ko bàkkee. wérul dof nangam sax amul wérul de ku wérul mën ngaa feebar wala sa boppam metti wala. tur boobu laay bañ a ndax rek. pour seddal ko. pour màggal parce que moom mi yàlla yónni amul vie privée Seydina Limaamu amul vie tabu déedéet moom la yàlla yónni kenn du na nëbbal dara ndax moom ci moom la ñuy roy li ñuy roy ci moom li ñuy roy ci moom lépp lu baax moo tax moom Seydina Limaamu alayhi salaam amul vie privée léppam dañ koy wax bi mu wootee dañ ko kii dafa dof tubaab bi bu dañ ko ne c'est c'est gala ay dégg kon xam nga loolu yombul ah ñu ne nag comme que dafa dof moo tax booy mbir liggéey benn mbir tant que déggoo ca dof wala ku soof dañ la deme ko liggéey ba baaxagul moo tax bàyyi laay bañ ko ne dafa dof nag la ne ah kon baax na maa ngay dem nekk ca rek nekk ca rek di dem ci karce yi di wax di dem ci mbooro yi di waxaate fu ne mu dugg fa ba yàlla dogal bi oote bi amee ñetti at affaire bi gën metti gën a metti si la ko Jibril ñëw nekk sa borom nee na nga génn dëkk bi si gàddaay dem Malika am fa ñetti fan jóge Malika dem gore am fa ñetti weer jóge gore dem euh, Ndakaaru am fa juróom-ñeenti weer kon bàyyi laay am na euh, quinze mois yoo xamante ne duggaatul Yoff waaye ba mu lay ba muy dem lu leer la leen wax mooy maa ngi dem waaye maa ngi ñëw aba an aba an limaamu limaamu Yoff kon mool ne leen waa Yoff ne leen fàtteeguma leen te nag pour mu ñëwaat yoof nag loolu itam métti woon na ci waa yoof ñoo ko génnul woon waaye ñoo ko jëli jiwaat te jëli jiwaat ba ay condition la leen sanga bi tegal ñu signé ko jox ko ko mooy City Line yi ngay dégg tey mën nañ ne mën nañ kaa dagg un ba unité vingt six bàyyi laaye ko moom suufam la suufam la yoof ak ko jox loolu yoof moo ko jox nañ ko ko nangul waaye li ma la mën a wax mooy ba mu laxasoog ñetti euh, kaalaam ya ah, ah kaalawoo benn bi jël benn bi mu armaloo ko bi si des mu këlfaayoo ko mu taxaw fii ñu ne ko voilà limaamu nag dafa dof yemul si dafa dof ñu ne jinne ya mu doon wéetal sa place mboobu boobu boobu mooy fii tey jinne yee ko feeñu ñoo ko ñett jàpp ko moo tax muy wax li muy wax lu place boobu nag tey fi la yàlla dogal ñu fay féete mooy di fa màggale wooteem boobu kon woote bi taalibe yëpp fu waay ne ci àdduna boo nekkoon ba sa sa sa muraille de da ngaa war a bàyyi li nga def ñëw wuy si yonente yàlla bi moo tax maa ngi ko doon wax laataa mu ñëw doon naa wax naan ku nu woo sa téléphone cent quarante appel manqué buñ la ne dina la woowaat cent quarante deuxième ba du jël ndax xamoo ëllëg ci lu mu lay fekk asalaamaaleykum maaleykum salaam. يا ما خسر الإنس والجن رسول الله إليكم أجبا دايلا يا ما